waaye déglu leen ma ak help, bu leen ma dégloo ak xol I am not here to favour anyone I am not here to support anyone but I am just here to defal Gambian si loo xam ne loolu lañ nama si man te loolu lañ séntu si man te loolu lañ bugga si man te loolu lañ yaakaar si man meaning di not want to leer di leen wax lu clear for you understand ok i am um, share this information so that many people like all of like everyone koo hamne ne xelam ñaaw na si um, understand because man tamit I have been doing my investigation depuis démba si guddi bi ma gisee accident bi ne am na moto bi tamit jaaxal na ma te ñun jaaxalee ñëpp la ñu jaaxaloon ñun tamit waaye wax nañ ma clearing lu tax moto boobu noonu moto boobu noonu ak number plate boobu noonu yes it was that same car bu jëli ñoom Sainabou mbay bot déglu leen ma ak xel bu leen ma dégloo ak xol moto bi yóbbuwut Sainabou Mbye Sénégal moto bi jëgu jële jógewut Sénégal indi Sainabou Mbye déglu leen ma bu baax a baax moto bi demut Sénégal Euh, yóbbu Seynabou mbay te moto bi jëlu demul jëli Sénégal Seynabou Mbaye indi ko Gambia déglu leen ma ak xel bu leen ma déglu ak xol share this information so that everyone will learn from it let's put politics aside nañ leen bàyyi yaaxante bi always ñuy wax loo xam ne moo ñu óor te loolu loo moo nekk lu am dëgg la ñun ñëpp suñu xel war naa ñaaw moto boobu noonu bu am accident démba with the state guards you know that same moto moo indi xale bi Seynabou Mbaye bu mu egsee ba Gambia ok am lu ma leen di wax rek mooy dab seen moto jógewul Sénégal indi Sainabou Mbye waaye moto boobu noonu si boppam Banjul fii Gambia fii la jëlee gars yi indi leen te naka la waat sax am am am am si euh, car contrôle yéen ak maa dégga su fekkee déggu leen ma wax leen ma ma ma ma xam pour ngeen understand car contrôle ñuy contrôle affaire yi moto yi. affaire state moto yi ak whatever moto yu nekk fii ñooñu noonu ñoo joxe because lii affaire state problème la ba pare xale bi ànd naa ak bu Mbye ñëw maanaam Mohamed the disease xale bi dee bi ànd naa ak moom is there right pour ñu jël xale bi indi ko ak whatever doing with the state wala moo xam moto state la ñu ñu ñu escort leen di seen moto boobu noonu moom escort xale yi xale bi ak Sainabou may biir Banjul biir Gambia pour ñu indi leen yóbbu leen fu ñu leen di yóbbu gis leen nuñ suñu nuñ soxlee kees bi pour mu pour mu dox si lu war ak si dëggu noonu la ñoom tamit noonu la ñoom ñoom tamit yàkkamti kees bii nii pour ñu def ko si nu ci digg ak si dëggu because ki ma waxal moom wax na ma lu leer a leer a leer because digga la jën da ngeen ñu dee déglu da ngeen am yaakaar si ñun ba pare ñun dañ leen di war di jox clear information boo xam ne dafa leer moo tax man tamit ma dox ay jéego def suma investigation ba xam moto boobu naka la ak nan la moto boobu noonu Gambia fii la enoon xale bi because xale bu dee bi maanaam baby Mouhamed bodeem bi moto boobu moo ko doon export te lii is affaire yi is about um, state issue it's about state issue. Then the state needs to take actions. So it needs to take 100% protection of that baby at whatever in this case for case bi ñu mun koo dox mu leer affaire state la moto boobu noonu dëgg la dat moto la but um, contrôle am um, am um, car control ñoo yone. waaw ndew waaw ndeysaan sama bossé ñu ma oo oh, sax pour ma dem ndew waaye gambie rek nii la soo leen ñu yaakaaree ñun tamit dañoo def li tax ngeen yaakaar ñu gannaaw yàlla loolu la ñoo def pour make leen ngeen understand moto boobu noonu is the same car dëgg la is the same car bi nga xam ne moo nekk di escort président bi muy dem waaye car contrôle ñoo dem tamit pour escort xale bi dead body bi pour indi ko ñu mun a def whatever they want to do pour ñu mun a xam affaire bi naka la Interpol ba pare gis nga um, moto gis nga dañ yónnee moto ñu dem jëli Seyna de that same car car car control ñoo yónnee ñaari moto ak Interpol pour ñu dem jëli Seyna bu mbay kooku noonu di ron foofu noonu si si si si booda bi fii si si si si si si terminal bi la xaar ñu ñëw ñu ñëw that dat kooku noonu terminal bi pour ñu mun a leen a indi moto bi is the same car pour just to make you people clear pour get understand ñun ñëpp lu leen jaaxal moo ñu jaaxaloon but make nañ ñu ñu understand niñ def génn ba wane ne ñun understand luñ lii ñoom tamit noonu lañ reach out to ñun explain nañ ñu man day reach out nañ tu man te explain nañ nañ ma lu tax dat moto waaw state bi moom war a jël full responsibility si keesi xale bu xale xale xale bu dee bii nii si keesi Muhammad bi loolu moo tax they have na to do su nuñ ma ko waxee they have nothing tu do with supporting Seyna Mumbai wala supporting anyone but ñoom ñun ñu ñu ne ñu buggee justice mu taxaw ñoom tam noonu lañ ñu ne buggee justice mu taxaw moo tax ñu jël full responsibility pour dem escort xale bu dee bi that innocent kid escort ko mu ñëw dugga si Gambia dem ak jàmm ñu yóbbu ko fu ñu ko war a yóbbu si lopitaan bi def post-mortem whatever ñu ñu war a def. ñu yàkkamtee case bi ñoom tamit ñu ne noonu lañ yàkkamtee case bi because affaire state la because affaire state la. baax na ñoom tamit always ñuy génn di clarify baax na always su ñu mënut a génn ñoom ñu wax ñu wax loo ñu ñu jox ñu ñun correct information ñun tam ñu génn help society bi help nit ñi because nit ñi tamit ñu ngi jaaxle ba pare ñu ngi déglu understand comme ñun nuñ understand woo wuutoon def naa suma jéego bu ma mun yépp because man tamit dama leen ko oo you know dama leen ko oo nag with your support and encouragement lépp lu ma xam muy dégg te déggu dinaa génn ma wax leen ko as Gambian as koo xam ne da ngeen ko óolu te ngeen jox ko seen doole mu nekk fi fa di voiceless reach out nañ tu man te ku déggu moo reach out tu man nekkul ku ndaw ku déggu nekkul ku ndaw tamit nekk si kaw moo ma expliqué na lii te xam na si dara xam na si lu bari nu ñu buggee kees bii mu sotti mu jeex ñu xam digga noonu lañ buggee ñoom tamit as des seet noonu lañ bugg am loolu tamit ñu am digga génnee si digga dëgga la state moo jëli woon moo jëli woon moto state moto state bi moo jëli woon yóbbu na jëli na ñaari nit waaye not dat dat seen moto moo dem ba Sénégal déedéet dat seen moto Gambia la am escorte si xale bi dead body bi escorte ko pour ñu yóbbu ko fu ko war a yóbbu ñu dem toppatoo affaire bi pour ngeen ñu méeg ko ngeen clear to your people is their right pour ñu dem jëli xale bi dead body bi escorte ko xam ne kii doomi réew mi la xam ne am na lu xew si xale bi te dee na xale bi dañ war a jël full responsibility as a state pour ñu taxaw si pour you make them clear is that same moto because uh, number plate cannot bi two two they cannot be one si ñaari different moto is that same car if not rek then then den then then lifin am na fa den then crop stuffs am na fa is the same motto is the same number plate motto boobu noonu la ki xam ne moto boobu noonu la moo ma ko wax ki xam ne moto boobu noonu la moom ma ko wax ki nga xam ne sax mu ngi liggéey foofu lay wax xam na si lu bari just to, make you understand Gambia, just to make you understand, so that you will not be confused. It's the same car that bring this um, bu escort ci xale muduga. but never the same seen moto moo dem ba Sénégal dem jëli Saynabou Mbye Mumbai. because ku ma ko wax mu ngi liggéey it's the same moto that more than escort from the from the airport de astafurlah Gambia fii nekkul ne moo ko dem jëli de pour mu make get understand again you understand ñun confusing. No noonu get confusing. te yéen a ngi am yaakaar pour ñu wax leen lu correct is the same car bot nekkul ne moto bi moo yóbbu bu Mbye Sénégal moo indi Sainabou Mbye from Sénégal si Gambia bi fii and is our right and government bi tamit war nañoo def lépp luñ mun because it's a state issue war nañoo dem indi xale bi escort ko nu ngi ko war a escorté te xam ne doomi Gambian la te bakken lañ bakken la moo dem dañ ko escort si te loolu lu war la dafa war pour xale bi ñu escort ko moto state bi moo ko escort waaye nekkul ne dafa dem pour support bu mbay yóbbu ko wala indi ko pour mu make ngeen clé mu ngeen understand loolu moo tax ma génn si pour wax leen because bala maa ñëw si event bi lañ ma kool te ku ma kool ku mag la mu ne ma dama la bëgg a explainal pour Gambien si ñu understand understand leen ko loolu nañ leen bàyyi put politics in it nañ leen bàyyi jaxase bu ñoo def amul jëriñ dëkk bii ñun ñëpp a ko bokka jaamal lañ fi bugga nañ leen oote jaamal léegi nag man understand ma woon méeg nañ ma ma understand te man tam du ma ko denc si man man tam ma ngi leen di may ngeen méeg ngeen understand waaye lu ma leen di wax rek whoever is in the government the state the lawyers the judiciary the judge make sure ngeen def lu war si biir case bii because lii nekk na sensitive cases yoo xam ne yéen war ngeen see taxaw dafa concern the entire country àdduna yëpp ñu ngi leen di seetaan not only in the Gambia but even outside xam leen ne lii war leen naa woon I'm talking to the state right now the state the judiciary the lawyers li ma leen di wax mooy képp ku nekk si case bii nii xam leen ne case bii dafa concern the entire country entire Gambians and outside Gambia because nuñ def ba xool moto bi plate number boobu dem si posti kex bu mu post depuis weeks ago loolu moo leen di won Gambians are not joking with this if you try to mess with this case or cases you are going to put fire loo xam ne yéen doo leen ko mun solve And let me tell you, I am just advising you Gambians are ready. Young people are willing and ready. If you people try to make anything jahas mahas in this thing, wallahi, elega sibir di ngeen ko xam man fofu la am ak ñëpp waye di leen wax ne rek na seen xel dal. moto bi ni indi moto bi ngeen gis ak plate number bi Nekul ne dafa yobu Seynabou Mbaye wala nekul ne dafa indi Seynabou Mbaye from Senegal. dafa escort dead body bi and dead body bi war nañ ko jox all the respect is a innocent kid all the respect pour ñu escort ko ak moto président bi sax ak moto président bi war nañ ko ko escorter pour ngeen understand ne nekkul ne moto bi dafa dem am dara lu mo def ak Seynabou Mbay déedéet this is a this is a state issue and state we need to protect them ñom ñep ak including Bob lo rek la amone pour wax jërë ngeen jëf pour make leen ngeen understand maa ngi in an event waaye whoever have anything to ask you can ask me always I will answer your questions bugguma fi disrespect can disrespect anything anyone bugguma fi saaga you know me now man I will just block you I just block you you leave du ma ko caaxaanee sax di leen wax ne rek jërë ngeen jëf yal na yàlla yokk a jaama indi jaama si biir dëkk bi loolu rek la ñoo ñaan léegi nag noonu la ngeen understandee ko noonu ok thank you